ànd ba ànd jeex ànd ak ku ragal yàlla moo ci gën looloo waral ñi bëgg seeni mbir faju ànd nañoo ak Serigne Abdoul Aziz jaw yàgg naa leen ko wax borom xalima gidul laal suuf macha allah laal leen bant ana ñi ñàkk yaakaar ci seeni mbir ñi am jafe-jafe àddina ba yaakaar ni dootul jeex ñi am gàllankoori àddina te ay liggéey teg leen ko daw leen seete Serigne Abdoul Aziz jaw yow mi nekk ci barab ñu dëkke laa xeex di la gasal di la suulal Serigne Abdoul Aziz jaw mi ngi ceeg loo xam ni képp ku la liggéey mbaamu suulal la daañu la nettalil ay mbiram ay mbiram am gàllankoor encore jigen ju am jafé jafé ci sa bir négu sey gor gu télé ci sa bir négu sey kuy liggéenti ay kayit ci bir réew meeg bitim réew mu télé tic aduna yépp serigne Abdul Aziz jaw lañ ci waxtané ay mbiri mag la yor dé malako wax dé ma nga fële ci Thiès Madinatu Rahma di quartier serigne Abdul Aziz jaw yow mi yek ak njaaxle njàqare ci sa yaram ngeen man ko jot ci 77 571 87 63 wala 78 469 92 92 mbok mi da nga am jaaxle ci sa ëlëk bëgg ku la seetal wala nga bëgg ku la defal listixaar danga nekk ci ay xat-xat wala nga tëju bëgg a ngay jigéen bëgg borom kër wala nga doon góor bëgg soxna mu tëj la jokkool ak saadi Cerno Saadibu Sow Cerno bu Sow di ku yàlla baaxal jóge Casamance góor yàlla bu bëri xam-xam taxaw ngir dimbali askan wi Cerno bu Sow yàlla may ko lool ci wàllum paj moo xam hémorroïde ndoxum siti wala góor guy néew kàttan ak yeneen xeetu feebar Thierno bu Sow moo ci gaaw boo dëkkee Kaolack mën nga ko fekk ci diwaanu Kahone bu dee yaa ngi Dakar mën nga ko fekk Yoff wala nga jokkoo ak moom ci numéro bii di 77 085 78 50 ma baamtu ko 77 085 78 50 ak Thierno Sadibou Sow seen njàqare jeex na tàkk. de lu fa xew waay ñoo gën a mus ñëpp ndey njaay fakkin ne yaa aha aha dañu foog ne ñoo gën a mus ñëpp ndey njaay fakkin ne yaw aha kuñ ko segal dem bala fa ñoom ñaar fakkin ne dem balante yi moom danga changé complètement surtout deux jours yi gis naa la ni ngay tegalee lay saw añ démb si guddi gis naa ni nga tegee reer te noonu musoo koo def si sa at sa boobu ba tey ba nga commencé sëy yaa ngi de ko de nag ni nga meloon melatoo ko de sëy du noonu sëy du noonu boo amee sa problème yaa ak sa jëkkër man mii noon naa ko bañ a xam xawma nag ban problème ngeen am yéen ñaa ndax problème xaju fi yéen seen de miel sax jeexagut lan la lu xew ba ngay doxalee nii lay saw yaa gis ne danga mer ah nga changé moom xawma lan la de lu xew dara dama boolewul daraa ci wax du lépp lu ma warloo wo maa ngi koy def rek maa ngi koy jox mu lekk maa ngi koy jox mu naan maa ngi koy toppatoo kay baax na mais ni ngi koy toppatoo sa kanam koo la gis dina xam ne yaa quelque chose nit ñi dof ñu di surtout man mi xamna la bu baax la yag dañ bo méré xamna naa amé lon xari xamna nak say fenc sa kanam gi wax ma nak nak ma ngi yow ñoo am bo li tax mun la yo duggal ba sama neeg bi lool la bëgg ñu waxtaan ci lepp lu mënti am waro doxale ni te saw nak joto jotoo waragula fay def lo xamne ne war na la mëna nak xari la la def loolu len jotté na xam sa sañoo ko moom ko muy doxaan mom nak amul fitam mom mom ci mariage bu amagul trois mois loolu moom bu ko defee man maay jënd coow li xaw ma nag. dëgg def ma nëbb loo xam ne mënoon naa ñàkk. fii loo fi gis rek waxtaan la communication su amul ci couple dara amatu fa. moog zéro ya loolu am na yoo xam ne warul waruma toog ba di ko dégg ci mbedd mi laay saw di ko nëbb nëbbal kooku kon kooku mun naa def toj-toj bu ne. lan la. ardo. ardo ma. nekk te laay saw mosul fase ardo. ba pare ma ko nëpp man yooyu yëpp sax garaaw mës na koo fase fasewu ko loolu metti ma li ma gën a metti mooy la moo tax Laye Sow may Chacha mu di ko chantage di ko laaj xaalis Laye Sow di ko jox comme si affaire bi man daal ñu may joué tour daal ma nekk dof seen biir Chacha di lay xaasu Laye Sow Laye Sow naan ko bu ko fàcc na yëg léegi à man man man man affaire bi lan laaj ci comme waye waye de man damaa choqué man yow nga ne ma Laye Sow faseegul Chacha déggal man maa ngi juum sax ndax Chacha mi yóbbu suñu fit toog suñu firi farag yi lu ñu nekk Chacha mooy jiitu ca kanam man man Chacha man nag man xamatuma man genre nit la léegi Chacha moom loolu jaral na ko ci muy ànd ak laay saw di dil ay raqam ak di nëbbatu loolu boo amee Chacha du ñëw wax la ko ñun ñu xool nuñ koy lijjantee mais Chacha nag man nag comprendre tuma de laay saw kii ci mbiru Chacha Fatou Kiné c'est ça sañ nañoo jaay ñoom. ñun ah, jékki-jékki dañuy ah, ah, am na ñu ñëw jàpp ñu dugal ñu si oto yi ñuul yi léegi yow laay sa fas fas yowul aar la. léegi moom lan la lan la teg si sa loxo day sëy ak moom ba tey wala ko. mayu ma ko sax mu wax boobu ba léegi dama koy déglu ndey waxul waxul waxul ba keroog ma jàpp ko ci poñ wax ko la ma ko ba pare muy wax man ko ku la laaj noppi romb ko dem sama yoon depuis lor nag xuloo ma histoire ma maanaam fii ma toog mënu ma fi jóge moom sëy bi moom loolu tasu ko mais dama koy won ne ko carrément li ma def nii su ma la su ma la poñee maanaam koñe ko daal nga xam ne dootu waaw ëllëgee dootu ko defati dootuma kafateeg moom dootuma reetaan moom xam ne carrément kii lii metti na ko xam ne beneen yoon suy defati dara dina ma kinne lii ak lii ak lii waaw léegi moom lan la la wax dina ko fase wala day day day day fasewu ko waaw léegi doo wax ak ko nag moom maa ma xam su jàkkaarloog aardo da koy fase pour laay mi ce que leer na lay sow mii mii ma xam ki may fanaan la bés bu jàkkaarloog ardo fase ko loolu moom leer na ma mais lool kon yaa koy lijjanti de. ndax xam nga xam nga góor ñi tamit seen jikko juste góor ñi ay yow xam nga yaa ma gën a xam laay saw nag man moom bett na ma tey moom wax dëgg fa yàlla moom wax dëgg yàlla man bett na ma ndax yaakaaroon naa ni sax mbir yooyu bagate na ko teg ko man lii man man loolu laa yaakaaroon mais na la wax dëgg li am am balaa tax ma la la waroon ne yu ne man kat dama lay wax li am mm-hmm. ndaxte. sama diggante ak Ardo ñëpp xamoon nañ ko ba xamoon nga ni sëy amoon na si diggante bi Ardo dem na nag mayaguma ko baat na la ko wax nga ni ko carré mun la carrément damay xaar mu taxaw ma may ko baat si sa kanam wala ma may ko. waaw ma ko woon ko garaawul man Ardo su nekkoon ci biir kër gi sa sañ naa fee sëy si xam nga loolu man metti lu ma ko mais li ma ciy nëbb di ma fen. loolu ma metti loolu la ñëpp loolu loolu kañ moom naqari ñëpp loolu moom moo naqari ñëpp moo wax dëgg fa yàlla yow daal li ma lay wax mooy fexeel ba mu fase ko ëllëg a tax ëllëg a tax nit looy dugg da ngay dugg si lu leer naan ñi faat ki ne xam naa li ma la wax xale yu jigéen ñi vulgaire nañ capable nañ fi mu toll nii bu yëgee ni yaa mi ngi sëy yow attan naa ñoom ne day jël toog palaasam ñëw di gérer si loolu te loolu bu ko nangu. yaa koy xalaat laay sa xalaatu ko. xalaat lu leer bu ko nangu de. wala daal nga bàyyi ma wala lijjanti lii man. déedéet eh, déedéet da nga am ay rab. ah man pël ma la de. dama wax de ma la dara sa saa nag moom mbiram nañ ko lijeenti jot na de. man bayam fi fii la koy bayti neegu dool ma dootuma waxtaate la mom non la bul def lool lool mom bu ko def. non bul def dem teud bul def lool yewin na bul def sama blouson bu dang laay fanaanoo. blouson. dangaa <laughs> xamo góor. ñawal fer di patay bas nga xool. buñ la bëggee dañ koy daggate. sen pince ñu jël pince ko def li ñuy def. ñaa dem gérer sa ménage bi bu la carro sonal. sëy ñu sëyaanuñu xam nga àgg ah, sëyam laay sax mu noonu doon xam nga yaa ma gën a xam lu yàlla xam doy na. man yor naa appartement boo yoree xaalis settement yaa xam looy liggéey doonal taxi man lii ngay war maa ko yor def ci man appartement bi foo ju fay courant bi leen ni yi bokku ci ñi réglé kaay yi soppil sa jikko bi soo buggee am lu baax non ci di bokk si nag nee na soppil sa jikko bi nee na jabax nee na jabax dama laa tiital sa seex seex seex boo ñëw naa lay gis seex boo ñëw naa la teg bët seex seex bu fekkul woon dama bokk ak sa yaay billaay wallaay damay wax am na loo an leneen loolu naka yow rax nga boo bokkul woon ak sa yaay damay wax dangaa rax ni ngay ñëwee si man xoo boobu dag bugguma ko de bugguma ko de gis nga ku ñu xam foo jëm doo gaaw a yegg te man sama yoon sama lépp dafay bette li yaay oto bu amul carte grise nan lay dawee mais lan moo tax oto bu amul visite technique ñu koy dawal mais moo tax chauffeur bu amul permis di dawal tamit oh mais tali bi tamit xatul xol yi ñoo xat. way <laughs> sama dem na garage nag tey moom garage ñoo aaye tey garage ñoom ñoo aaye tey tey waa garage ñooy aaye tey. mais du yoon ni jaay. waaw waaw. laaj. ça lu bees. alhamdulilah. yaa ngi toog. déedéet damaa jonkan. dangaa jonkan. wallaay léegi da jàng tontu. waaw xam ne yaa ngi ma fekk ma toog ci sama fauteuil nga toogandoog man naan ma ndax maa ngi toog tooguma damaa jonkan. waaw loolu affaire la rek wallaay lan la wala dangaa yëg li fi xew. yëgoo problème mu un yi. kii euh, papa. papa daal laa doon waxtaanal rek xam nga ci problème mu sëyu ak sëyam bi ak Ndeye Ndiaye. xam nga yow soo xam ne suñu yi dañoo amee ay rab. Mm. léegi man daal ma ne papa na ma jox bu dee cent mille wala deux cent mille xam nga papa dafa xër léegi nag papa jox ma un million pour ma yóbbu ko fële man sax laajuma ko un million yi moom moo ma ne yow li nga def lu rafet la tagg ma daal ak yi ma ciy sonn ak yooyu mu yëkkati yow un million jox ma ndekete yow papa un yi daal xaw ma daf ma bëggoon a dugal xawma lan mu ñëw wax ak Ndeye Ndiaye Ndeye Ndiaye bañ mag ji pànk ji ñëw indil ma plainte te laay nag yaakaaruma ci kenn ku dul yow te xam nga ne man góor laa te beneen bi mooy damaa ragal polis dugg polis moom damay xaru ngeen ñàkk ma ma bëggoon rek nga jox ma un million ma dem fay ko ñu bàyyi lépp mu sedd man moom ay affaire u leb ak ay affaire dugg ci yëfu jàmbur moom jeex na fayal ma bii rek laay bii rek déggoo ma xanaa laay problème mu un million bi ma la expliqué laa wala mu koy fayal nit ñi dañoo war a defaraat seen xol yi ndax camion dafay siis bus 10 di pousse car car di 6 euh, minicar minicar di 6 taxi taxi di 6 moto. moto di 6 vélo vélo di 6 ñuy dox ci piétons yi mais kañ lañuy génn ci senegal mais at lu coow lu mën a demee ba ñu déggee ambulance di ñëw dañ ko waroon a may mu jàll. neexul ba neexul waaye raay bi def doxul. waaw ah, xam nga raay bi doxul. du leer na la raay bi doxul sax. semaine de fer liggéeyul. waaw xam nga raay bi doxul. Mm-hmm. yow nag doxuloo. xam nga lu mu bugg seex te yàlla rek tax ah nee nga oto bii day jaay bii doole bii day jaay bii doole bële day jaay bii doole kono yow yaa ngi jaay sindi jaay doole fi ñu toll nii ci sama esprit yaa ngi may jaay doole ci sama xalaat yaa ngi may jaay doole te jaay doole baaxul hmm? ambulant bii ngay wax dañu koy déglu pour que dafa war a jaar yoonam seex déglu naa la jaral sa yoon nga def pipo pi feneen nga bàyyi ma man ma tok sama salo jàkkaarloog sama atmosphère fekkal sama xol cheikh yaangi moy commencer dépasse voilà da ngay wax deug ñu ne nañ ko nëpp nëppal nañ ko nës nësal li mom motax suñu rew mi mën ta dem yow yaay suma porte parce que lo mën ti don ci rew mi yow ya wara taxaw malay wax ngay hay cheikh nak jël nga wal nak dama damaa dox nga dem kono legui yaangi ci air bi seex bo demul ma dem de barke Rasuul laay boo demul may dem. yow do sax rus heure bi waron la fek ngeur sa kurus ñu nana Adja sacha xawma Adja Ratu sacha nga tok fi bëgg jël sa aduna yëpp diko tek ay dil tek nga fi nattu jambur lek ma joxe may gu ñëk te yow lolu ki ne lijjanteegu tel buñu teddé dina ko ko rof ba mu saf sap mu lijeenti lool xaalisam boobu mu la joxon ma ngi dig ay écho dang ko fayé bor parce que nat nga yoron amna fam bu xess bu daan ñew yoy yeb yek nako té te teddé guddi dina xam ki ne yow bandi wo yow da ngay bandi bandi yow yow nit ñi lan nga leen def yow yow nit ñi ay dof nga leen def wala yow yaay nit ki ñun ñoy dof yi c'est ça ku ñew nga bëgg lek 1 million yow ñaata million nga fi lek eh xam laa laajuma la yow may neexal di seddal di def sama dram ngay defee ne eh, yow dama laa ragal wala da wàññil sa baat te wax ak man dofoo jina jàpp la te un million yaa koy fay li ma fi lekk yépp sa jabaar ak Ndey Njaay xam nañ fu mu dugg lekkuma dara bàyyi leen te un million yaa koy fay neexalatuma la dégg nga li ma wala pëlis su ma fay dem bu may dugg ngay dugg yow nga ne ah nga ne man bandiwuma yaa bandi dinaa la wan ne la bandi baa ngi nii nag yow li nga def mi ngi ne yow yaa ngi nii dem takk taq suuf xaw ma taq lan ah? yow ñuy wax sa jabar jee pareeguñu nga am leneen loo wax yow am nga loo wax yow yow su may wax ci kër gi danga war a wax ne nem soo taxee ba may yuuxu ba fàtki ne dégg ko yow yow defal attention de danga jox ma un million jàmbur. xam xam nga da ngay bandi bandi lu sacha man def naa lu ne toog ne nem te kenn xamul kenn yëgul loo xalaat nag ci lu bandi di def moom kañ daf may neex ngay wax may def wala ngay laaj may joxe xam nga lu tax bëgg fat ki ne bañ koo ñàkk bëgg leen yéen hmm. moo tax ma fat la sama biir kër di la jox ngay lekk di la jox ngay nan nga may dóor ma koy nangu. lii mooy Sénégal. da ngay wax deug ñu nañ ko nepp neppal nañu bayyi nepp neppal beeg masda bi ta waxante deug ta yalla rek tax man musuma wona a nekete helicopter bi dina naw ci kaw di déranger ñi nga xamanteni ni ñi ngi ci suuf. kon xam nga tangal nga ma man. ah dama la sonal. amoo ko sax kon je parle parce que Oscar va dire à Boubacar que le car de Dakar part à Dakar à 4 h moins le car trop tard je ne marche pas

o hanga ma di ki dof na di ah man fii laa mus a gise toguloo yamba naanuloo sangara loguloo piyo ngay dof lamour la lamour ndakate yóbbu xel lamour la moo moo ko dof na départ yow de waxuma la avion yi waaye yaa raw hélicoptère wurr si kaw ngay dem seeg dem na ay waay o hanga ma dem na ya bëgg sama rakk waaw mo moo moo tax malay wax dama lay wax ni séqoo koog ngàkk séqoo koko dof lu def man la neex ma la gëna bandi malah la gëna rew tak tax ka takk jabar di ko xola wa fo jëm yow eh dama bëgg nga déglu ma dama bëgg nga déglu ma gis nga sa yi day jeex ci kër gi man na mako faat dama ni merde ii dama ni ma la gëna bandi malah la gëna rew bobu tay ma ngi masla et bu feu bi xonké dañuy taxaw est ce que dégg ma dama ni dama ni nga dégluma fatki ne da nga dem wax ko demal nga wax ko lepp yegg nako yegg na ni yang may santage di lek sama xaliss yegg na ni sama digënté ak ardo lool sax du problème parce que lima ko wax la rek ardo tek ko beut mo tax wu mako damay wax ci kaw mu dégg ñepp dégg fatki ne yegg na lepp ba tuddo ma ci problème eh merde dama nga dégluma fi may wax du yow yaay wax mën na mel nu nak mën naa dëkk ak jaan ci biir pax ne nem mais xoola bu bandi jotee ma doon bandi nag loo nekk sama kër ma lay jox ngay lekk ngay naan nga may jaay reewande te xam nga loo bëgg police gay di nga fa dem te di nga fa wéetoo du avocat du ko lay fayal du man benn bi topp sa bagage laa bëgg nga takk mu dëgër këcc nga abal ma sama kër du ma la ko waxaat bandi woo laa ndeke kii de ndox mu sedd mu ne nemm la lay mu waxee man nii jaay ma yëfu góor jaay ma yëfu bandi non kii bandi la dafa nëbb boppam ay man nag xaaral ma changé waat xool samay bagage man dafa mel ne sama gàllaaj bi dafay bëgg a toj mhm, lii gàllaaj bu toj la hmm. Kiné Kiné yow tamit danga maa mere fii nga toog de fi la laay saw toogoon tuuti mu dóor ma man laay ni mu mel tey musuma koo gis ndeke laay saw seddam gi yépp moo raw kaani lay saw nii la mel non lay saw daf ñoo nëbb jikkoom waxtaan moom nag Kiné wuyu ma man may sa mak yaa ngi dégg soo ma meree tamit ngir yalla rek wax ma lan motax nga mere ma nga génne li sa xol waxal lula neex ndax lay saw neena na kër gi dama fi genn tay duma fi fanaan te bu ma génnee fii fu jëm. dem ci àll ci xaj. ci xaj ki ne man may sa mak yow xoolal may sama jam man mago ma la mago ma la nawlo ma la su demu don tay yalla xamna ne duma la wo ba nga ñew sama kër gi dima tek gatché yow li nga nekk ya ko tay sa jëkkër nga jël léegi teg ko sama kaw. waaw ma mën a gënal fuuf benn erreur un million bii rek erreur. benn ñaata million nga lekk yow. yow Chacha ñaata million ñaata zéro moo nekk sa biir bi dëkk fa kañ nga koy génne joxe ko. waaw man sama jëmm ji defe naa moo ëpp xaalis. kan yow waaw. sama jëmm ji moo ëpp xaalis te problème moo tax ma wax la te expliqué naa la lépp waaw expliqué naa la lépp waaye nag amul problème. sama kër jëkkër ji te doo fanaan su la nit di àq si mbaa police dina jël si ca àll ba la la jël see xaw ma la sekkatuma yow dara sekkatuñu lenn est-ce que c'est clair. waaye li ngay man bu ma génnee fii fan laa jëm. man sama làmmiñ bi dama ko sellal. sellal sama yére sellal sama bopp c'est maa ngi sellal rek de samay mots sax vulgaire dama koy sellal ndax lépp rek bëggumaa tooñ su yàlla suñu borom jébbal naa ko sama bopp ba pare bëggumaa reculer waat nga yàqal ma xam nga iblis nga mën nga maa yàqal euh, ba ba ba yàlla sax alag ma te loolu laay bañ ba ba léegi maa ngi yar sama làmmiñ bi te ngir yàlla bul tax vulgarité bi génnaat ngir yàlla. kinne bul wax noppi. kinne wuyu ma kinne yow tamit ñu bokk ñooy tooñante. ñu bokk ñooy laalante ah te man un million bii xanaa bu ma laajoon deux millions kon da ngeen may rey un million day xaalis laaj saw mii mun na koo fay ci minute bii erreur la rek benn erreur ngeen ne mukk doolee ma baal da ngeen may génn léegi boo leen ma génnee ci kër gi fan laa jëm ah Kine waa Kine baal leen ma do Kine doo ñëw rek ñu waxtaane ko la yéen tamit man du ma génn ndax awma sax ku may kalaame sama nijaay man ñemewu ma sax woote dëkk ba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 ànd ba ànd jeex ànd ak ku ragal yàlla moo ci gën looloo waral ñi bëgg seeni mbir faju ànd nañu ak sëriñ Abdul Aziz jaw yàgg naa leen koo wax borom xaalima gidul laal suuf macha allah laal leen bant ana ñi ñàkk yaakaar ci seeni mbir ñi am jafe-jafe àddina ba yaakaar ni dootul jeex ñi am gàllankoori àddina te ay liggéey teg leen ko daw leen seete sëriñ Abdul Aziz jaw yow mi nekk ci barab ñu dëkke laa xeex di la gasal di la suulal sëriñ Abdul Aziz jaw mi ngi ceeg loo xam ni képp ku la liggéey mbaamu suulal la daañu la nettalil ay mbiram ay mbiram am gàllankoor encore jigen ju am jafé jafé ci sa bir négu sey gor gu tële ci sa bir négu sey kuy ligënti ay kayit ci bir réew biti bitim réew mu tële tic aduna yépp serigne Abdul Aziz Jaw lañ ci waxtané ay mbiri mag la yor dé <laughs> maa la ko wax ma nga fële ci Thiès Madinatu Rahma di quartier serigne Abdul Aziz Jaw yow mi yek ak njaaxle njàqare ci sa yaram ngeen man ko jot ci 77 571 87 63 wala 78 469 92 92 mbokk mi da nga am jaaxle ci sa ëlëk bëgg ku la seetal wala nga bëgg ku la defal listixaar danga nekk ci ay xat-xat wala nga tëju bëgg a ngay jigéen bëgg borom kër wala nga doon góor bëgg soxna mu tëj la jokkool ak saadi Cerno Saadibu Sow Cerno bu Sow di ku yàlla baaxal jóge Casamance góor yàlla bu bëri xam-xam taxaw ngir dimbali askan wi Cerno Saadibu Sow yàlla may ko lool ci wàllum paj moo xam hémorroïde ndoxum siti wala góor guy néew kàttan ak yeneen xeetu feebar Thierno bu Sow moo ci gaaw boo dëkkee Kaolack mën nga ko fekk ci diwaanu Kahone bu dee yaa ngi Dakar mën nga ko fekk Yoff wala nga jokkoo ak moom ci numéro bii di 77 085 78 50 ma baamtu ko 77 085 78 50 ak Thierno Sadibou Sow seen njàqare jeex na tàkk.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 you're looking